tijani sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara tey nag dafa am lu bees tàq fii ci suñu réew waaw lu bees tàq lañ koy wax lan lañ koy wax mooy coono chômeur maanaam bëggatul benn ndaw di toog ci buntu këram di ataaye wala ngay dugg ci problème mu jàmbur ak moto daf ko dindi ba mu set tramoto nag du lenn lu dul entreprise boobu mag boobu nga xam ni jaay moto moo ko tax a jóg waaye lépp luy pees méngoo ci moto mu ngi koy jaay waaye tamit ay moto bagage am na fa ak li nga xam ne moo di ay modèle pour cag waaw kon loolu la ñuy wax genre moto boo bëgg rek boo doxantoo fële di nga ko am wala nga nekk ndaw wala nga dajale sa xaalis bëgg liggéey te amoo liggéey demal gaaw nga consulter trois moto mu teg la ci axe ak cot jox la cek-cek jox la moto bu yàqoo sax mu daan lay jaay pièce lii la trois moto def waaw boo bëggee xam trois moto nag fan la nekk fenn dégg naa waa am na jaan boo tudde waali loolu foog ñu wax waay waay waay waay waali dégg naa am na jaan boo tudde waali waaw ñaata yoon ay vidéo vidéo na moom gisu ko ndeysaan waaw ndax li ko topp moo bari li nekk ci bopp bi moo bari. Mhm. te du nit kese du waali waali kese nga ne waali loolu. du nit kese faalu man maa la loolu ngay dégg. waali bi waaw gis leen ko nii rek man de yàlla rek a tax ma yor ma mhm. jàkkaarloo moom. Mhm. dama ko génn damaa xëy génn ko xam nga maa ko wax. ba nga jàkkaarloo moom. dama jàkkaarloo moom damaa xëy génn ko. barki démb Dakar. di jàkkaarloo noonu dama ko génn génn bu doy waar. Hmm? mu ko xamante ne nii du ma bëgg a wax sax. non da ngay wax fii lépp fii leer. dama koy xel di ñaanal saa su ne dara jëy Serigne Touba ci leer bi mu ne moom ci kaw du xuus di jàll di dem gaaw waxuma ne du ko def de mais gisu ko moom ci jamono bi toll nii ko koy daw. da ko mu nekk ci leer. man moo di lay wax du ko di nii fi mu ne di xuus di jàll di dem laa la wax man samay bët dafa gën xaw a fulu. yow mi dama ko gis moom yàgg mu mel ni luy fulu te borom baatin laa borom zaayit laa damaa gis waa ni daal. ci kaw muy xoos di jàll fu leer naññ. yow seen bët ful yow si loolu. <laughs> te borom baati bi du nit du nit moom du nit de xam yow yow ngeen xam loolu ah. te mu yor micro di wéy. du nit kooku am lu yàlla def si moom. kon gars yi gars yi war nañu ko loolu mhm. sa ndey liggéey dafaa fekke comme nit kon lépp maman Diaga la. bu li ci sa liggéey boo liggéey am mu neex mu nakar xanaa nga bañ a liggéey sa yaay yi la mu daj wàll yi yaay dafa baax bàyyi baax moo tax a demee dara ji moom Rasulullah li ndeyam daj këram fal fos mu neex mu nakar yi ca kaw ca kanam. kenn moo ci dara bindeef. dañ ko dañ ko gën a dégg lu leer laa doon doom weer. barki démb yaay wax wàll yi defagul dara commencé gul sax. yëgagul. non daa woyeegul nga ne may naan sala bi nag ci daa woyeegul li muy woy nii ngeen taxaw yi mu war deux lan la nekk nii deux mille vingt trois di ngeen dégg di ngeen dégg musiba ak yeneen yoo xamante ne du naan doon moom naa naan naan bi mu ngi ci li mu nekk rek nekk ci ay bagages am ci rukom moom Waly lu des ci àdduna mais yow sa diggante Wally kañ nga commencé sentir Wally carrément ba tax nga taal sa oto keroog jóg spécial. am na lu ma wax sax wax ci YouTube bii nii damay noppi rek. barke alxuraanu karim démb la dama ñëw suñu kon si la sama ma naa loolu dinañ ci waxtaanaan. si la sama laa ko def ma nekk fa nga ñëwoon noonu. Mm-hmm. démb démb kon xam nga démb lu yàgg la. Mm-hmm. dama ko yàgg bàyyi xel ndeysaan moom dama ko ngi nekk ci lu nekk man maa ngi nekk ci lu nekk te maa ngi koy gis ndeysaan te yaa ngi ko ñaanal di ko defal ñaan xam nga kii la maa ngi koy gis 24 waaw waaw kon dafa garaaw Baye Fall la Baye Fall bi mu doon mooy nit kasal rek ndeysaan bu la day kaf keroog eh Mori li mu la waxee keroog kaay de ñeneen waay Mori waay waay Mori waay kaay yóbbul ah ngaa def loolu laa yóbbu bi lu waxee loolu lan nga sentir automatiquement foofu day Baye Fall dugg seen moo waral goro mu am cofeel man la ma sax yaakaaroon ak la ma foogoon demul noonu mais kenn du yow gi daal. non non nañ dem ci waale lépp waale. yow da nga baax la. yow da nga baax yow yow kenn gënu la ndeysaan. yow loolu loolu mu ñëw doon na nga ma wax. mariage bi ñëpp a ko bokk kooku géej la. la ma doon bàyyi sama idée. bàyyi sama soxla bàyyi sama lépp ni tey. damay dem ci ñëw. taal jugee Thiès taal sama moto fi laa daale sama moto de. ñëw ci moom. ngay sànni ñëw fasal couleur ak moom. spécial kay. jaaroo fenn. rek stade nga def. moom laa ñëw dara gaare gaare sama oto foofu noonu li mu gëm ak li mu bëgg bu arrière bu réglé yoon bi dafa gis bari doo ragal nekk ci. te da koy am de. te lépp ngi sa kanam. mais xeex bi bari na xeex bi xeex bari na ci moom. may sant yàlla. xeex bi ak wax ju bon fii boo amee lu ne lay wax boo amul nag du la wax dara ndax du la soxor bëgguñu ko am. Mhm. man li may néew néew néew li ma am nii rek am na te ne yéenul ma ko. Mhm. booy door rek dawal di dem di ñëw di dugg di génn. Mhm. te ñoom dem mënuñoo dugg mënuñoo génn. Mhm. waaye lu tax ba duñ soxor li yàlla na ñoo xam ne dañ na ñoo xam ne dañ ne waali li muy def lu bëri ngir la oto yi muy mayeeg affaire jour boobu nga ñëwee est ce que xam nga ne may na ñaari oto. ah gis nga waaw. ah nee nañ waali li lu baax. ah dégg nga ah dégg nga ñu ne waali ki war a ci ñàkkam ci alalam. laa yóbbu mu yëkkati ko jox la ko. nga ne day day day gisal. dara am ñu yoon naka su noonu. ko kenn joxuñu kenn. wallaahi muy def kenn social ay problème ay doomu aadama yi am problème mu leen di dimbali moom waa bu ko demoon uh-huh. wax de man yi maanaam dañu bàyyi faam ci moom li muy def uh-huh. di di di ko xaar moom foofu mu yëkkati xaar di leen ko jox waaye waaye bu ko nekkoon di xëy di leen di wax 24 heures sur 24 du leen jox dara mais day génn yëkkati xaalis jox leen kooku daa baax ku mel ne da nga koo war a ñaanal jàmm waale bu ko neexoon tey wala set yàlla mu neex yàlla nii mu dem Europe mu dëkk foofu noonu tey nekk doomu Europe kon fan lañ jëm ñun yàllaa ko na mu nekk nekk la ko loolu yàllaay mayee bu ko dégg nekkoon France wala mu nekk Allemagne noonu ñun fan waaye yàlla def na ko doom doomu Sénégal nekk ni ku ñuul di yëkkati drapeau Sénégal fu mu toll ca kaw ca kanam. Mm-hmm. du ko ñaanal jàmm li muy def ci réew mi lu baax du ko ñaanal jàmm mu am tawfeex am jàmm man de dama ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfeex mu yëg ko mu ñàkk koo yëg ndax yaay ma baax yaay jaaga. ma jaaga waaw lépp ma ma jaaga la. cëy kon daal jaan yi yaa ngi ciy liggéeyal waali loo xam ne yëgul tinul mais di nga ko ñaanal bu baax a baax jaan yi. ak jaan bi nga ko tuddee am na jaan boo jàppee keroog Dakar. mu ngi fi jaan waali mbaa du yi romb yi benn la ci affaire di nga woon jaan bi nga xam ne moom nga tuddee waali mu nga fee. bu émission bi jeexee nga jàppal ma ko ne ma bii nga tuddee waale ma xam ko. i affaire. waaw deret bi boo xoolee sa saako bi ni nga ko nii. Mhm. ba dee ci. Mhm. kon daal ñu bëri dañ naan Wally fay na Wally essence yi dooleem dafa wàññeekoo yooyu lan lan lan ci wax yow. ñu ni lan ñu bëri dañ ne Wally dooleem dafa wàññeeku essence yi ci musique sénégalaise bi léegi mu jeexal ak yooyu. li mu jeexal ah. ah. xam nga ñoom ah xam yi moom lu la ñu wax rek. non nga jëmee ci moom nekku ci yeneen nit ñi li yàlla def ci moom def ko ci beneen nit yàllaay bind sa jëf fii dem bind te du tàgg nit du wax nit ala kuli alin balaa ngaa day am neexu nakari <laughs> nit ki bu gëma loolu soxor <laughs> boo ko mën yàlla ay maye yàlla ay dimbali yàlla ay defee. wala ay doo seen nga kontaan ci loolu. mais maraay yi nga xam ne dañuy génn di wax safaan ba waale nii waale def nii waale def nii léegi ñu def ko nii di wax lu bon ci waal yi loo xam ne négatif la loolu lan nga ci wax. ñun lan la koy def leneen. nee na waal yi am na maraay génn naan waal yi géntal naa ko mu accident géntal naa ko mu def lii géntal naa ko mu ñu tëj ko kaso lu nekk lañuy wax en fait. yàlla gëmul nelawul te du jaawale ay malaaka nekk ñëpp cité Djili mbay en face armeel yi maanaam ci cimetière yi waaye tamit troisième place moom dafa dindil coono ñi nga xam ne ñooy banlieue bi déglul li ma lay wax yow mi dëkk jàmm gën si Kambaaw poste Thiaroye Kër Massar wala Kër Mbay faal lépp lu mu ci mënti doon troisième place ba ma nga nekk fële ca Petit Mbaaw donc jëlal gaaw numéro yi pour nga mën a dem consulter Tramoto jëlal 77 418 26 00 ma baamtuwaat ko 77 418 26 00 ak Tramoto amatul chômeur ci mim réew liggéey rek ñàkk jariñu